jërë ngeen jëf ci seen ànd ak seen seen YouTube Taf Info wéy leen di ànd ak ñun ci lépp loo nga xamante ni am na ci ay programme tey seen chronique dañuy ñëwaat ci lu jëm ci yenn ci ay mbir yoo nga xamante ni am na ñu koy gis ci réseaux sociaux yi te di ko ñaawlu mu di yoo nga xamante ni mi ngi xew fëre ci suñ commune bee di Méouane mu di ñenn ci ay acteurs politique di sànnante ay xeer yenn ci xeer yi ñenn ñi di ko for di ko dugal ba tey ci réseau sociaux yi mu di loo xam te ni du les di rafetlu ndax kat ku ci nekk war ngaa am dignité teg sàmm parole yi keneen bàyyi ko ko opinion waaye kat li nga xam ni moom la ñuy gis te mu gën a wéy ci suñ commune bee moo di lan ci ay maa parti politique bi maa bokk parti bee kii laa àndal kee laa àndal sama noon la naa ko sànni xeer te wóoru woon a àgg foofu comme ñi jug ñëpp dañ ni commune bi moo ñor bu dee commune bee la ñor war ngaa dox doxin wu nga ni nit ñi dinañ xam ni yow kat commune bi moo la ñor waaye kat bu dee lu jug nga wax ca keneen ku wax nga sànni ko xeer kon kat la la ñor nuru na ni leneen la waale du commune bi ndax kat bu nit defee lu baax sax war nga ko caa encouragé félicité ko xam ne kii kat lii mu def man bu ma nekkan ci place loolu lay def waaye gisuñu loolu kat lañ gis mooy lan sànnente xeer kii moo def lii kii moo def lee naa sànni fi aw xeer naa ko tëmbalalu xeer wërta nekk lool bu dee commune bi moo leen ñor bu dee nag seen poos si bopp moo leen ñor man ngeen caa nekk te sëppi seeni wax ki lii nga xam ne moo di commune bu Méouane yenn di nag moo waral ba commune bu Méouane ba tey jii gën di suux gën a bokk ci ñi nga ñoo gën a suufe ci communes yi nga xam te ñu ngi ci Sénégal ndax kat seetal commune bu Méouane ñaata ci ay usine ñoo fa samp seen i taat naka noonu buñ ko dooree ci ICS buñ ko jaaree ca MDL buñ ko jaaree ca seen énergie jaaree ko ca Tobène Pao ak yeneen ci ay groupement yoo xam te ne ñoo ngi foofa ñoo ñëpp nekk fa ku ci nekk yaa ngi am looy def waaye kat commune bi ngir mu gis ci boppam lu néew la te wax dëgg waral na di ci gis boppam dugal ICS ñaata nit ñoo fay liggéey nga def focus ñay liggéey ci ICS ñan ñoo ci dëkk ci commune Meouane ñan ñoo fi dëkkul nga def xool ko nombre ba ak li nga xam ne moo di pourcentage di nga xam ni ña fay liggéey ña ca ëpp dun ñi nga xam ne ñoo dëkk ci suñ commune te moonte waru war a demee noonu ndax kat lam war a demee moo di lan commune bu ne fa nga xam ne fa la samp ab énergie eh, ab usine ña fa nekk ci dëkk ba bu ñu xamee compétence yi ñooñee ñoo war a nekk ay priorité waaye du loolu lan gis ndax priorité gisuñu ko fa ñeneen ñi ñi nga xamante ni am na kas capacité yooyu nga xamante ni moom la ñu laaj fële am na ci ñoo xam ne kenn jëlu leen te wuru woon a demee noonu nam dem war lan kii mën na maçon te dëkk ci commune bu Méouane kon kat kooku moo war a nekk priorité ki nga xamante ni moo jógee Dakar wala Kaolack wala ki nga xamante ni moo jógee Tivaouane wala Thiès ndax kat ñoo ñëpp ci yeneeni commune ci la ñu nekk te kat loolu nuru ne nit du loolu lañ gis ñu respecté ko naka noonu bu demee ci MDL moom itam mi ngi euh, tiire suñu zircon yi ci aju di jël di yóbbu te ñoom itam au bi doon nañ gis ay jël ci commune bi waaye kat loolu bu dakkeet war na ko gën a gën a gën a gën a gën a gën a sàmm sàmm ngir kat ñoo ñëpp am na loo xam te ni mooy seen warloo ci li nga xam ni moo di commune bu Méouane ndax kat mënoof foo ñëwee di tiire ressource yi te kat la la warloo ak commune ba maanaam defoo ko la la warloo ak arrondissement ba defoo ko loolu kat ñeen ci xaar le plus moo di lan les maire le maire Bara Ndiaye euh, wala le maire Cheikh Sall le maire Bara Ndiaye c'est le maire sortant moom itam lu ci mën a def xaares na ko ca le maire Cheikh Sall mi nga xam te ni jamono ji moo nekk maire moom moo gën a nekk posi position boobu moom moom fi ne nii ah li nga xamante ne moom la ñu xaar ah moo de lan moom mu taxawu commune bi ndax kat wax na ban jël ko fal ko kon fi ne nii la des mooy lan dox jëm ca ndax ñëpp ñi ngi euh, firi seeni nopp firi suñuy gët di xool lépp loo xam ne nag euh, naqsaale na wala mu jaar ci beneen yoon wu bokkut ak bi nga xamante ne bi ñu koy fal ah jàmmaarloo dina am moom ak ñi nga ne ñoo di waa commune bi ndax kat yu bëree bëri yi doon bañ moo tax ñu fa wàcce maire sortant bi te teg ko fa moom ci boppam kon kat war naa sàmmoonte ak ndono loolu nga xam ne ñun moom lañ ko gisee leel moo taxit it ñu jox ko ko ndax kat la ñuy xaar ci ak nit du leen lu dul la nga xam te ne moo di ay waxam waaye de la sëñ Abdoulaye di wax nii nit day ci waxam lañ koy xam ak xool ay jëfam waxi daaw bu méngool ak yu ren ah bàyyil bu yi méngoo nag a ah, jàppal te kat le DG Cheikh Sall dafa am loo xam te moom la la fale benn rupture boo nga xam te ne nit ñi dañ ko soxloon wala benn changement boo nga xam ni nit ñi dañ cee dañ koo mar moo tax ñu teg la fa waaye du ni yaa bokk ci parti politique bi yaa bokk ci parti politique bi gis nañ fi ngeen àndaat yaak le maire Bara Ndiaye ci ni lan président de la république moo leen ngeen ànd loolu de baax na lu rafet la waaye bi commune bi soxlaa de yéen kenn nangu ci ànd ak sa morom ku ne da ngaa ne da ngaa beral sa daaray bopp te kat bu dee yéen commune bi mënu leen a boole waaye daal le président de la république Macky Sall moo leen mën a boole ah man xamatuma ci dara xamatuma ci dara ndax tey bu dee commune bi moo leen ñor yéen seen jëmmi bopp war ngeen a mën a ànd ngir lu développé commune bi waaye pas président de la république moo ko wax ku ne dem faire semblant ni man maag kii moo ànd ñoo ànd ñoo ànd wërtane foofu ne mooy mu nekk lu nga xam te ni lu dëgër lay doon loo nga xam te ni day nekk ànd goo xam te ni commune bi moo koy tax waral ku gis li nga xam te ni mooy commune bi doxul nga mën ko wax sa morom ni ko kat lii boo ko defee nii ak nee dinañ ko dinañ ko dina doxee ne le maire Bara Ndiaye loolu la ñuy xaar ci yow ndax kat yow am nga ci expérience comme jiite nga lu mat 5 ans yow war nga am capacité mën di conseiller le DG Sall ci ni ko kat fii euh, fëq na fatt ko fee war nga koo defar commune bi nii la demee commune bi nii lees koy développé boo xam ñu développé ko waaye commune boo xam te ni bokk na ci yi nga xam te ñu ëpp ay usine ci Sénégal te moom bokk ci ñi nga xam ñoo ca genn ba warul wan a nekk foofu ndaxte ku am rek ICS waxale mu MDL de war naa mën a développé yeneen eh, eh, eh, usines yi ci yeneen dëkk yi ñoom la ci ëpp ñoo koy def mais ICS day ñëw moom di jël suñuy ressources di yàqate suñu suuf di di fa def ay jalo yu kenn xamul ay bukki ay bukki dëkk dëkk dëkk ci jali moo xam am na ñu ay gaynde ci biir ci biir jali loolu lan moo gën a métti te la ko waral moom ICS mooy lan mu lépp lépp suuf soo xam ne gas na ko jal suuf ak di def jal bu jalaanoo yooyu yëpp bu pare mu defaraat lépp maasale suuf si nga xam ne nit ñi dinañ fa mën a dem di bay waaye occupé suuf si pare def fa ay jal continuer dem saw yoon mel ne rien ne see passé war tëdd me noonu lawar mooy lan suuf si foo jàll nga maasee ko nit ñi mën faa defar nit ñi mën faa jàll ay jamono gis naan fi nga naan jëmbat garab ak def yëf yéen waa ICS loolu fu ngeen ci toll garab yooyu est-ce que àll boobu garab daanaka doo fa gis lu néew ci garab ñoo fa ne la fay nekk la ëpp moo di ay lii nga xamante ni euh, moo di euh, lay nekk ca foofa la ci ëpp moo di ay caxat ak yi ci aju waaw mais li doon xaar moo di lan ICS suuf sum jàll mu maasale ko nga xamante ni fépp fu mu jàll dina nekk loo xamante ni lu ne booy lay doon te loolu lañuy xaar comme ni MDL ak ñooñu ñëpp loolu la xaar ci ñoom commune ba du loo xamante ne day nekk euh, séddale bukki ku ñëw ku jóge fële ñëw ñu jox la mel ni bool dof fu waaye jógee ñu jox la eh, as paak nga nga ne fay naan da ngay da ngay da ngay exploité nga def yëf exploitation baax na waaye am na yoon woo xam te ne ca la war a jaar moo xam ci wàllum emploi ci commune bi moo xam ci ñi nga xamante ne ñooy compétence yi ci commune bi moo xam ci main d'œuvre yi ci aju yooyu yëpp des ko war a respecté moo xam sax ci wàllum sanitaire ci ndaxte santé population bi moo exposé wu ndax buñ gi boo gisee ICS booba ba léegi à chaque fois saxaar di naaw kaw te demu ci kenn ku dul ci dënni waa commune bi kon loolu rek gàllankoor bu rëy la ndax foofu yaa yeewu suba teel sëkkut xasan nga xam xel ni yow mii nooy yu nga ci saxaar si ba ba ni jour te loolu lan lay indi ëllëg ci population bi yan maladie lay mën a indi ndax buñ xoolee ci ñee nga xam te ne commune bi ay tension dafa bari lii nga xamante ni moo di euh, asma dafa bari te loolu lan moo ko mën a expliquer lan moo ko mën a expliquer saxaar su bëri kay asma nit ñi buñ asma wala ñu am problème bronchique bu mu la bett asma bu mu la bett tension comme saxaar saa ngi kii nit ñi tàngaay gën a yokk tension kay bu mu la jeet bu mu la bett foofu bu mu la fa bett maladie cardiaque bu mu la fa bett comme acide bi mooy dugg ci nit ñi dugg seen pour mooy jaar seen i seen xolak yooyu bu mu la bett te yooyu yëpp la ko mën a régler moo de lan ñi nga xam te ne ñooy suñu autorités yi nga xam te ne ñoom lañ fa fal moo xam le maire Cheikh Sall moo xam ki nga xam te ne moo di le sous préfet ak ñeneen ci ay autorité ñoom ñu respecté ñu respecté ci naka ci ñu dox jëm ci loo xam te ne doxal commune waaye ñu bàyyi li jëm ci wàllum nangam nangam di wax yoo xam amul benn njariñ ci naan kii moo wax li kii moo wax le nga dem ci réseaux sociaux yi dem di ko fa di ko fa vilipender ak dérive yàgg a ñu war a nekk ci lan fukki ci lu jëm ci lan développer commune mbokk yi lii moo nekkoon chronique bi ñu ngi leen ziar bu baax di leen sant di leen gërëm di leen jox dig daje beneen yoon ci beneen chronique incha allah jaa ngeen jëf